doyen comme ni ko xam annoncé léegi ni actu commenté bi te dinañ wax euh, si nomination yi am ci conseil des ministres bi amoon démb on dit que Diomaye sanctionne et récompense gis nañ ne ay direction yu bari jëlee na ñi euh, teg ñale waaw xam nga depuis le 2 avril dafa benn régime bu bees ki ko jiite mi ngi tudd Bassirou Diomaye Diakhar Faye ki nekk premier ministre mu tudd Ousmane Sonko ñoo ñaar ñëpp bokkoon parti bu ñuy wax Pastef Pastef doon locomotive ci coalition bi ñuy wax Jomaay président coalition moom nag am na ñoo xam ne ñeneen dañoo mujj dem dolli ci ku mel ni Mary Teuw dem na dolli ci gis ngeen moom def nañ ko directeur de cabinet. Mm-hmm. am na ñeneen ñoo xam ne aussi dolli woon nañ ci ku mel ni ay Aïda Mbodj Mimi ture kenn nommé gu leen officiellement gis nañ Cheikh Bamba Dièye nommé nañ ko dem dënk nañ ko aéroport yeneen nomination aussi boo boo xoolee di ci ëpp solo suñu bokkul Pastef ñu doon xeexal Pastef lañ léegi nag yow da nga ñëw indi benn projet xamal nit ñi ne yow boo ñëwee rien ne sera plus comme avant da ngay def post stratégique yëpp da ngay def appel d'offre pas appel d'offre appel à la candidature plutôt donc da nga koy mettre en compétition mais gis nañ ne loolu amul parce que bi nga koy wax peut-être promesse électorale la wala du woon loo gëm dëgg mais au contact du réel tu te rends compte loolu lu la boo interroger histoire soixante temps yi kenn doxalewul noonu on gouverne avec ses amis on gouverne avec les personnes auxquelles on a confiance mm-hmm. loolu mooy dëgg même feneen foo mënti dem ku jël pouvoir say nit say nit ngay placer ku jël pouvoir say nit ngay placer foo mënti dem États-Unis France yëpp Macron ñëpp a ci yem donc loolu peut-être wax nañ ko mais xam nañ ne mënta nekk léegi ñu ngi dugal seen nit te ñoom bi ñuy wax ne dañuy dugal seen nit ci ñetti critère la mhm. ne ku ñuy nommé critère bu njëkk bi mooy intégrité maanaam nga doon nitu dëkk beneen bi mooy compétence ak patriotisme léegi ma li ma amal solo parce que nit ki mënoo koo mënoo xam degré d'intégrité mhm. compétence gis naa ne ñuy nommé am naa pro pro kii nu mu tuddee présomption de bonne foi yaakaar naa ne ñooñu war nañu am compétence te yaakaar nañu aussi patriotisme war na mën a am ci ñoom léegi li ci des mooy ñun sénégalais lambda bi dinañ leen xool on les a à l'œil comme li tubaab di xool leen mettre leen à l'œuvre léegi ñun li ñuy intéressé mooy ñooñu mu tab gis nañ ne nag waa APR yëpp faxas na leen c'est très mm. normal loolu mënta mënta ñàkk mm. parce que régime bu bees la boo ñëwee da nga ñëw indaale say nit ñi nga fa fekkoon aussi da nga leen di dindi loolu ñoom ñëpp a def que ça soit Diouf que ça soit Wade que ça soit Macky logique la quoi politique la logique mm. administrative la mais nañu fexe daal ba administration ñu bañ ko politiser parce que administration boo gisee kii yu bari structure yu bari amul jeexital. wala alal ji dafa mës yàqu parce que dañoo jël nit mu am casquette politique di politiquer loolu. que ça soit la poste le port la lonance structure yu mag yi mu fal dem yëpp nit ña fa nekkoon dañ daan politique pour seen parti walla pour seen coalition donc finalement xaalisu boobu la ñuy jël fi ñu ko war a dugal lu ñu ko def des na léegi daal noo ma ne ay nit. da leen teg bët di leen xool di leen surveiller parce que loolu moom responsabilité moom moom parce que ñun faluñu kenn. Mm-hmm. ku ñu wax président Diomaye la ñu far léegi moom moo war a rendre compte bu loolu weesoo aussi mu fexe ba ñu teg ay instruments yoo xam ne day doon instrument de contrôle yoo xam ne alal du mën a saaw et li ñu gëmloo nit ñi aussi muy sobriété bonne gouvernance ñu ne ci loolu daal leen leen lañ c'est important euh, doyen Cheikh Diagne euh, ban gis nga am euh, par rapport à ça rapidement. gis bi moom par rapport à ça mhm. mooy en fait gis bu simple la parce que déjà titre bi daf ko annoncé des récompenses ou sanctions je sais pas ça veut tout dire du moment qu'on fait wala du moment qu'on sanctionne qui que ce soit rek ça veut tout dire alors que ñoom. boo xoolee si li nga xam ne moom moo bokkoon seen projet politique laa bëgg a wax parce que yàgg nañ ñuy wax projet projet projet on sait pas les tenants et les aboutissants peut-être ñi bokk si ñoom xam nañ projet bi wax ne bu ñu ñëwee une fois au pouvoir mais boo xoolee euh, bi ñu ñëwee au pouvoir bi dafa wane ne li ñu doon annoncé dans les campagnes à fait contraire mm-hmm. parce que dañu waxoon ne même bu fekkee certains d'entre eux ñoo ngi continuer di relativiser ba léegi ñu ne les appels à candidature c' était pas à tous les postes mais c' était à certains postes ngay dégg ñu la koy wax mais bon certains postes tous les postes c' est du pareil au parce que gis nga da nga su da nga wax ne da ngay def rupture boo ñëwee une fois au pouvoir yow nga ñëw sa première nomination yëpp on voit que say nit nga fa te comme ni ko doyen waxee. ba ñu ñu amuñu si benn benn problème ak ñoom nga hmm. jël teg say nit mais gis nga. Euh, parole donnée dafa am solo si doomu aadama parce que boo xoolee fii lu baree baree bare nit ñi lu ñu wax mooy le il a tout fait mais du respecter sa parole donnée. ñun nag dañu bëgg politiciens yoo xam ne une fois au pouvoir ñoom bu ñëwee dañuy respecter leur parole donnée alors que c' est pas le cas ñoom premier euh, lu ñu mën a les premiers pas lu mu ne mooy du parole donnée parce que boo xoolee Waly Bodian Diouf euh, Pape Alé Niang Fadilou Keita loo leen a waxal ak lu leen nit mën di waxal c'est des militants de Pastef c'est des de Pastef bu fekkee Pape Alé ñoo ngi naan amul carte Pastef wala bokkul Pastef Pape Alé amul carte Pastef sympathisant Pastef la il faut dire les choses telles qu'elles sont depuis 2021 ba léegi mënoo wax ne Pape day def journalisme lu muy def c'est tout sauf du journalisme c'est du gis nga bu nekkee ci dëkk bi dañuy waxante dëgg amuñu benn problème on ñi dem fi dem prison yëpp boo xoolee c'est des sorties yoo xam ne daf ko doon def à l'encontre de Pastef wala daf ko doon def parce que day défendre Pastef wala day défendre Ousmane Sonko wala day défendre bokk si Pastef moo tax jiiñ ñoo doon xeex ñoo doon xeex guddi bëccëg meeting yu ne organisé manifestation yu ne organisé nañ malheureusement Pape Alé Niang génnee salué wul sax les journalistes dafa continuer si voie bi mu nekkoon ñëpp wax nañ patron de presse yëpp wax nañ bi mu génnee dafa continuer si yoon bi mu nekkoon di milité wu pour Pastef tey bu xëyee jox ko RTS euh, bon vent lañ koy lañ yàlla na réussir ak jàmm ak salaam parce que Pape Alé Niang Sénégal la comme Sénégal yëpp loolu lañ koy souhaité mais en fait il faudra que nit ñi revenir à la raison bu ma nee revenir à la raison mooy depuis biñ biñ falee le président gis dans les réseaux sociaux ay xale ñuy toog di bind poste ne ko jox directeur yow euh, nit ñi ñooy toog dans les réseaux sociaux lu leen neex ne Pape Alé Niang ko jox porte RTS mu ko tey nga xëy jox mais Cheikh est-ce que tombewul Cheikh euh, il faut pas dire que li ñu def ci réseaux sociaux yi kese moo tax mu def ko il faut qu'on soit il faut qu'on soit plus responsable bu nee qu'on soit ah. plus responsable gis nga état caaxaan am na postes yoo xam ne c'est des postes comme ñoom ni koy waxee ñoom postes stratégiques yooyu dañu waxoon ne dañu koy def appel d'offres pour pour certains postes mhm. peut-être nañ xaar deuxième vague bi ñëw wala troisième vague dina am appel à candidature mais première vague moomul appel à candidature il faut qu'on dise les choses Fadilou Keïta ñun ñëpp xam nañ ne Pastef la bokk CDC mm. euh, la doon liggéey il avait des problèmes avec la justice mm. ñu démettre ko mm. après sax bindoon Cheikh Issa Sall maire Mbour pour mu réintégrer ko Cheikh Issa dafa bañ boo xoolee Waly Bodian Diouf c'est amoon na fi problème avec la justice après ñu gën ñu xëy yóbbu ko port te boo xoolee postes yi ñeen yóbbu yëpp c'est des postes stratégiques port l'économie sénégalaise 60 pour cent de l'économie sénégalaise port lay génne oh, oh, oh. peut nga jël CDC caisse de dépôt consignation xaalis ba yëpp daanaka état yi caisse état yëpp fa lay dugg. nga jox ko mm. des personnes yoo xam ne amuñu benn problème ak ñoom peut-être ils ont la compétence bu ñu leen ko bu ñu ñëwee rupture day am rupture mooy li xam ne moom la Macky Sall doon def doon ñëw def mooy jël seen hommes di leen placer ci ay postes yoo xam ne moom moo ko neex ils ont fait pareil donc dans ce cas de figure moom bu ñu waxati rupture li Macky Sall moom waa Pastef def donc rupture amatul côté boobu. peut comme Cheikh li li doyen doon wax sànq parce que peut-être moom du xaw a d'accord foofu parce que mi ngi naan. Mhm. Euh, même euh, dans les plus grands états yoo xam ne ñooñu gën a démocratique. Mhm. il a donné l'exemple des États-Unis mhm. ku ñëw sa ay nit moom ngay teg peut-être loolu dañ ko wax ci ay kàddu mais du neex a jëfee.

waaw ah, je pense euh, man <laughs> fu may commencer mooy du ma wax que peut-être nomination yu bees yi duñ ay nomination yoo xam ne peut-être ñoom liñ doon prôné tout au début l'homme qu'il faut à place qu'il faut parce que lool c'est très important ñu koy rappeler euh, tout à yaa ngi wax Cheikh lu am lu am importance parce que souvent Olof Ndiaye sax day wax Euh, dénk ki nga ki nga wóolu donc ki nga wóolu ngay jox sa sa sa alal pour mu dénkaane kala doy dénkaane kala doy <laughs> mais loolu yëpp mën nañ ko d' accord mais li ñu d' accord mooy ñoom li ñu mooy parole yi nga xam ne peut être moom lañ mettroon en avant loolu lañ diggoon Sénégalais yi moo moom mooy représenté projet PASTEF parce que bokk na ci ligne directive yi nga xam ne moom moo nekk ci ci ci ci projet PASTEF muy que bés bu ñu faloo duñ def comme président Macky parce que lu ñu jàppoon ne moom la président Macky di def mooy lay dem jëli mbokku euh, Marème Faye Sall jël ay mbokkam jël waa Sall leen ñëw jox leen ay post parce que loolu lañ ko jàppe parce que loolu lañ doon wax tout le temps mooy que kii warul jiite lii kii warul jiite lii mais ay mbokkam lañ mais tey bu ñu demee ba euh, gis benn gouvernement boo xamante ne dañu àgg ci nomination si ay postes yoo xam ne ay postes stratégiques la ay post yoo xam ne c'est pas donné à n'importe qui ñu jox ay nit yoo xam ne ñun Euh, ci suñu xalaat bu gàtt ñiñ ko jox ñenn ñi xamaluñu leen loo xamante ni peut-être war nañ mën a am confiance jàpp ne war nañ ko mën def du wax mënuñu ko def parce que peut-être ñoom am na luñ xam ci ñu dénk seen ay postes pour que ñu pour pour ñu diriger mais ñun en tant que citoyen en tant que sénégalais am nañ ci tamit suñu avis bopp parce que quoi qu'on puisse dire ñi ñiñ nommé ñëpp xam nañ leen xam nañ fi ñu jaar xam nañ liggéey bi doon def on peut citer mu ngi koy citer tout à l'heure gis nañ man depuis ma ko xam parce que ñun ay xale lañ peut yàgguñu ci métier bi mais bi ñu ko xamee ba léegi posture bi mu amee mënuñu ko jël sax comme référence ci ci ci métier bi ñu nekk parce que li ñu jàngal mooy transparence ak euh, li ngay information bi ngay joxe mu ànd ak bañ ci xool kii laa àndal bañ ci xool kii laa àndal mais man li ma ko mën jàppe mooy militant Pastef ku doon liggéey pour Ousmane Sonko ku doon défendre Ousmane Sonko ku doon jàppale ku doon def le maxim pour que pouvoir bi fi nekk mën fi jógee pour d'autres dañ lay wax sax que ne bi fi président Macky Sall di nekk comme opposant da doon def ni mu doon def ci Ousmane Sonko noonu la doon def donc man li ma ko mën jàppe mooy kon moom carrière am yëpp dafa nekkoon pour di jàppale ay opposant tey moom lañ dénk euh, télévision télévision RTS mu nekk benn structure boo xam ne structure bu mag la gis nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di liggéey comme ay journalistes ñooñu képp bu ñu leen dénkoon tey RTS mën nañ ko diriger parce que depuis ñu nekkee ay journalistes nekk RTS ba léegi bëri na ci ay ñoo xam ne mën nañ leen citer ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def bi biir RTS liggéey la boo xamante ne bu mucc ayib la ay nit lañ yoo xam ne yàgg nañ ci métier bi milité nañ ci donc je pense que ne ñooñu tey bu ñu leen dénkoon RTS mën nga ne peut-être mën nañ ko diriger man duma ne mënu ko diriger mais à mon avis personnel dama jàpp ne peut-être li mu liggéey ci projet bi loolu lañ ko fayee RTS parce que noonu lañ ko mën jàppee loolu c'est mooy li nga xam ne ce qui catastrophique pour ñoom seen ay paroles yi mooy que dafa nekkoon ay ay ay ay ay yoo xam ne sénégalais yi ñu ngi ko doon jàppee que ni bës bu ñu faloo mooy caxat caxatee alalu réew bi dina fi jógee te loolu lañ démarré même bi ñuy euh, tabb seen gouvernement dañu gis benn gouvernement boo xam ne liñ ci doon xaar ñoom gisuñu ko ci dañ doon xaar ñu dugal ci ay ñoo xam ne ñoo doon xeex pour Pastef mais dañu gis ay têtes yoo xam ne peut-être ci suuf lañ nekkoon di liggéey pour Pastef mais kenn mosu leen gis sur le ñuy posté nii ñuy génn sur ci télé yi di ay ay kàddu yoo xam ne liñ mën a jàpp mooy dañu leen choisir parce que ay nit lañ yoo xam ne pare nañ pour diriger ay nit lañ yoo xam ne au moins am nañ capacité pour jiite ministère yooyu mais suñu ñëwee ba ci ay post yoo xam ne c'est des postes stratégiques ñu doon xaar la même chose ñu continuer ci même lancé bi rupture bi ñu doon wax ñu ñëw indil ñu loo xamante ne ni man mënuma comprendre parce que li ma fi gis yëpp ay nomination loo yoo xam ne ay Fadilou Keita man je pense que ne ñoom li ñu doon xeex prison yi ñu leen doon tëj lañ leen fayee seen ay postes mën nañ leen ko d'accordal parce que li ma débuté loolu laay tëjee mooy dénkaane kala doy peut-être ñooñu ñoo leen doy ñu dénk leen ko mais bu ñu mës a que ne c'est les sénégalais ñoom ñoo sacrifié wu woon dajale seen ay cent francs seen ay fukki dërëm def ko ci Pastef ba mu agsi fi mu agsi jël seen ay carte d'identité xëy benn fajar dem voté ji gagné massivement pour Bassirou Diomaye fay une personne boo xam ne mën naa ne deful dara Sénégal lu war a mën a tax ñu ñu ñu fal ko mais projet bi nga xam ne Ousmane Sonko tenir na ko depuis des années projet boobu tey moom la Bassirou Diomaye Faye porté ñu voté ko pour mu nekk président. du Sénégal donc loolu bu ñu ko fàtte parce que c'est très important trahison boobu bu ñu mos a xalaat ne bu ñu mos a def lu tax tey peuple bi naan ñii dañu trahir nañ def seen maxime ba li ñuy xaar ci ñoom muy que Sénégal nekk fi mu nekkoon ñu jëlee ko fa yóbbu ko feneen ñu ñu def le maxime ba loolu mën a mën a am aboutissement merci beaucoup vraiment c'est important Rama ban gis-gis nga am par rapport aux nouvelles nominations comme ni nga ko annoncé tout à l'heure voilà euh, Cruzita gis-gis bi ma ci am nag tey je pense que dina xaw a wute tuuti ak euh, peut-être ñi nga xam ne ñoom ñoo ma jiitu ci kàddu gi euh, ni ñu ko xalaatee di nomination yu bees yi jàpp ni peut-être ay nomination yaa ma neex la bon en quelque sorte euh, peut-être loolu lañ ko jàppee ay ay ay récompense euh, par rapport ak peut-être yenn une ñu gis ci journaux yi ak peut ñoom euh, seen xalaat ci mbir mi mais man je pense que man loolu xalaatuma ko c'est pas c'est pas mon avis en fait parce que man jàpp naa ne tey ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ay poste en fait muy nomination yu bees yi nga xam ne am na man je suis d'accord ah ci benn côté bu ñu nee dañu ne woon dañuy def appel à la candidature peut-être dem nañ ba ci biir yenn réalité yi daf lañ ñu xam ne loolu dafay dafay metti du mën a nekk en fait mais man Euh, mënaguma juger euh, ñooñu tant que gisuñu leen ñu liggéey gisuñu leen ñu nekk à l'acte li ñu leen dénk buñ buñ demee bañ na ñii li ñu leen dénk euh, doxaluñ ko teguñu ko ci yoon bu boobaa man dinaa mën a critiquer wala dinaa mën a wax mais pour le moment damay jàpp ni peut-être ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk di gouvernement bu bees bi ñi ñu dénk ay responsabilités dañ ko mën a yore parce que tey ji man mënuma leen juger foofu parce que par rapport à seen premier gouvernement wax dëgg yàlla décevoir ñu décevoir ñu benn yoon jël nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo war ñu dénk leen ay post euh, ki nga xam ni moom moo yelloo li mu def man man je pense que bu ñu jëlee ku leen jege dénk ko dara dafa fekk ni dañoo gis ni kooku am na les compétences pour yor ko loolu laa yaakaar en fait loolu moom man loolu mooy sama gis-gis ci ci loolu parce que je pense que euh, tey jii ni nit ku la jege euh, tey Cruzita nga jege ma keneen sori ma ma gis ni yow am nga les compétence euh, du du du yow jege nga ma rek duma la ko jox peut-être mën naa bañ a mën naa bañ a réagir noonu mën naa ni yow jege nga ma mais am nga compétence yi dama lay dénk responsabilité parce que mën nga ko yor nekkul ni dama dama dama bokkoon ci ñi doon xeex ndax Pastef rek du ma am poste loolu je pense que man xalaatew ma noonu ñi bokk ci projet bi bu fekkee ne mënoon mën nañ yor ay responsabilités yoo xam ne dañ koy yor te dara dara du ci sikk liñ leen dénk danañ ko doxal niñ ko war a doxalee man je pense que mën nañ leen ko dénk man aw ma aw ma problème ci côté boobu je n'ai aucun problème à ce que euh, kii di Bassirou Diomaye Faye jël collaborateur am yu yàgg yi mu doon leen li nga xam ni moom mooy peut-être ay poste li may bañ kay mooy mu dénk leen ko ba pare ñu ñu koy yoree nu mu leen nu mu leen neexee di def na na ñi fi nekkoon daan def bu boobaa on aura quelque chose à dire mais pour le moment man je trouve pas de euh, problème peut-être du ma d'accord ak doyen doyen d'accordul ak ko <laughs> mais garaaw. <laughs> non c'est que yow bokkuñu fi ñuy surfer quoi. Mm-hmm. ñu waxuñu ne waru jël. mais dafa am ay engagement yu mu jël. yu mu jël loolu yow nga ne man bu ma jëlee pouvoir bi lii laay def. Mm-hmm. ñu ñëw nga def leneen. Mm-hmm. ñi lay xool am nañ droit nañ yow waxoo ñu woon lii leneen nga def. waaw d'accord foofu euh, la ñu wax waxoo ñu ne gars yi waru leen jël loolu kenn. doyen tey ji euh, li ñuy wax. Euh, dañuy naan chaque jour da ngay dégg ñuy naan jaam ak pexem yàlla ak dogalam tey mën nga ni man su ma su ma ñëwee fa tey damay xëy dem Dakar mais su ma demee Dakar danaa def lii ak lii ak lii nga xëy fekk dem Dakar fekk fa yenn réalité voilà boo demee da ngay conformé wu à ah, réalité yooyu ñun am nañ droit ne la sëñ bi lii yaa ñu ko waxoon mais nii nga doxale wax ji daal kon mën mën nay ñàkk jamono ji wax ji moom mën a mën nay ñàkk voilà wax ji nañuy agir rek te bañ di wax parce que bu fekkee li ngay wax mën mën nga xëy un bon jour mais loolu ça peut arriver à tout le monde ci ñun parce que ñun ñëpp ay humain lañ ñun ñëpp mën nañ ne tey damay xëy def lii bu subaa ma nga xëy leneen xew xam nga dans ce cas xam nga lan moo leen waroon fi mu toll toog ne ah gars yi waxoon naa leen nangam mais bi ma demee o contact du réel xam naa loolu mënul nekk donc on a changé de stratégie dañu waroon communiquer dans ce sens parce que depuis des mois loolu lañ lay wax boobu ma defee leneen Adja nag wax dëgg yàlla nit ñi dina leen ne bi yow li ñu waxoon. du lii waxuñu jàpp ma ni def nañ leneen man rupture bi ñu ci bi ñu nekk. jàpp naa ni ci loolu ci loolu lañ ne ba appel à la candidature même bu dee poste stratégique sax. c'est des postes stratégiques ah. c'est de poste lan nga tuddee rupture yow. en fait lan laa tuddee rupture. nga jël en fait euh, koo xam ni dafa nekk ci benn par rapport euh, ma jël benn direction. Mhm. muy ONAS. Mhm. ka fa nekkoon peut-être politicien la mhm. ñëpp xam nañ ko nam mhm. doon doxale gis nañ ko nga yëkkati ko fa teg fa koo xam ne yaakaar nga ni peut-être moom dana am beneen doxalin man yaakaar naa ne loolu mooy rupture ay naa ne loolu mooy rupture <laughs> mais ay lii ay partisans passé fa ma nekk ay politiciens lañ non nekk politicien terewul nekk nga mën a doxal mbiru réew mi ñoom dañu plaidé woon sax mais président de la république politicien la mooy ñoom ci seen ay discours dañu dañ doon dañ doon fustiger même comportement bi nga xam ne président Macky Sall amoon na ko mooy jël ay politiciens. di leen jéem ay non non non bañu bañu ñu politiciens yi Ibrahima ah, yow ki la abal ay bët moo lay wax fi ngay xool. tey ñi ñu ne kan moo fi am fitu def loo xamante ne Ousmane Sonko ànd ci wala Bassirou Diomaye Faye noonu ñooñu bu fekkee c'est des personnes intègres du ñu xool ni man du ma def lu neex Ousmane Sonko damay damay damay di def ko seeni i fegam ñoo amul fitu def lu neexul ki leen fi tegoon SMA ki nga xam ne day soog a door. yorul dara. pas forcément kon kon dañuy mel ni comme ñi fi jógee en fait. te te ñun loolu loolu lañ woote ñaanuñu yàlla ñu mel comme ñooñu mais ci yoon boobu lañ nekk. parce que ñi fi nekkoon ay politiciens lañ ay partisans APR lañ woon ay militants APR mais ñi ñëw nii. ay militants Pastef lañ. la preuve ki nekkoon RTS Racine Talla ñëpp xam nañ ne APR la bokkoon. waay apériste bu mag la woon. Mhm. Pape Alé Niang même bu fekkee ñoo ngi naan amul carte Pastef Pape Alé Niang ñëpp xam nañ ne militant Pastef la. mais mi nekk militant Pastef woon mën a tax nga bañ a mën a dox te dee njaaxal man man pour man rupture bi nga xam ne moom la ñu waroon a apporter dans ce sens bu ñuy wax rupture mooy RTS ñu jox koo xam ne il est indépendant nekkul politicien bokkul benn parti. waaw bu dee Pape Alé Niang moo leen doy am nañ ñoo xam ne y a des dans ce pays y a des hommes yoo xam ne c'est des hommes intègres c'est des hommes yoo xam ne ils sont mêlés ni de près ni de loin à la politique te boo leen jënkoon postes yi nga nañ ko a jox la ah? Pape Alé jox le euh, pour faire pour faire réseaux sax man damay peut-être mm-hmm. dama bëgg peut ñu bañ a euh, def trop ci sujet boobu. Mm-hmm. léegi pour pour terminer xam nga lan laa lan laa leen di wax déjà mm-hmm. euh, nañu nañ leen bàyyi peut-être ñu mm-hmm. doxal bu ñu doxalee. ñun dinañ xam ndax liñ ñun li logique bi ñu nekkoon wala xalaat bi ñu doon xalaat ci ñoom am na wala déet ah, mais jamono ji kenn mënagul leen kenn mënagul leen jugé <laughs> parce que gisagul leen ñu doxal nañ leen bàyyi ñu doxal bu ñu ah, doxalee en fait mu ngi noonu kenn jugé kenn <laughs> mais dañ ñoom lii la ñu waxoon defuñu lii ñu rappelé leen li ñu waxoon rek. d' accord <laughs> loolu important doyen. pour finir beneen beneen <laughs> cher rapport à tout ça. rapidement juste en mhm. soit bu ñu nekkoon ministre soit nekk nañ mhm. directeur. mais Cheikh est-ce que du compétence. compétence compétence ah. gis nga yow kuréel am na loo xam ne. bu jotee dañ koy wax wala ñu noppi. Mhm. gis nga ñi fi nekk ay anciens inspecteurs des impôts et mhm. boo xoolee ñoom ñoo créé Ousmane Sonko lu mu la wax wala Bassirou Diomaye fi mu la wax ñoom bi ñu nekkee impôts et ñoom ñoo créé woon syndicat. Mhm. syndicat boobu ñoom ñoo ci nekkoon. <laughs> waa Cheikh taxaw taxaw. rapidement juste pour finir benn question laa koy laaj tey jii nii yow par exemple yow Cheikh Diagne. boo yoroon ñu dénk la benn affaire. en fait yow bu fekkoon da ngay jël ay nit pour ñu liggéeyal la. ñan ngay jël. les plus les plus compétents mooy ñi nga wóol ñi nga jàpp ni ñoom ñoom mën na nekk ñi la jege mën nga ko wóolu te du am compétence waaye nga ko wóolu te du compétence mais boo am compétence lañ ko ñoom li ñu li ñu def dañu jàpp ni ñooñu am nañ compétence. moo tax ñu mais ñun tam ne peut-être ñoom it li ñu def nii. ñii amuñu compétence. wala ñoom ñu waxoon ñëpp nii loolu mënoo la xam tant ñooñu defuñu. mais mën nañ xam ne ñoom waxoon nañ te li ñu waxoon defuñu. loolu mën nañ ko xam mooy le fait que ñoom ñu annoncé au Sénégalais que ne bu ñu ñëwee ay poste dañuy def appel à candidat ñu ñëw def le contraire foofu la nit ñi di waxee mais waxuñu leneen bu fekkoon ñoom li ñu wax dañ ñëw conformé wu ci Sénégalais bi doo dégg benn Sénégalais prononcé mais dañuy wax Sénégalais ne bu ñëwee y a des postes stratégiques yoo xam ne appel à candidat yi la def ñu ñëw li ñu waxoon yëpp ñu rangé ko dans les tiroirs jëfee leneen foofu moo tax Sénégalais yi di wax mais Cheikh yaa ngi naan yaa ngi naan peut-être que leen neex parce que président hmm. moom am prérogative par décret noté ku ko neex loolu kenn hmm. a l'attitude et le pouvoir de d' accord très cher mais comme tout à pour tëj yaa ngi naan euh, première vague bi Euh, génn na et que nii lañ doxalee peut-être deuxième vague mu nekk appel à candidature on verra peut-être <laughs> ci mbokk yi mi ngi noonu yéen a ngi ba tey si seen émission bët set si votre chaîne préférée di l'évidence TV euh, dañuy wéyal rek sunu waxtaan jàll si sunu deuxième partie émission euh, muy chronique du jour ñu nax si ànd ak doyen doyen sujet bi di rapport du département d'État américain l'image du Sénégal écorné doyen waaw xam département d' état américain bu nekk benn kuréel bu nekk États-Unis jege